Yang ngi koy nah très bien ndax bu paré interroger Google. Hmm. tapi turam gis ñaata résultat la am nan man google Google nan ko nga siw réseau yi ni ko yow kuy ko am doole nga fekk tekkiwul dara ndax ñun ñoo ko dooleel loolu nañ ko bàyyi ginnaaw buñ fi jaay ma jaar daal kuñ fi ni ñukk mu mu lom ñu amee ñoom dañ daan dem sax di jëndi ay vues ba bitim réew waaw mais léegi ñun ñu bëgg leen dooleel nañ ko bàyyi li nga xam ne moo nekk poste bi nga xam ne euh, euh, def na ko di attaqué brûlement euh, ñi nga moo nekk waaye mouvement Y'en a kenn d'accord ma ak waa Y'en ci seen gis-gis xam nga li tax man dama jàpp ne convocation récente yi il faut dérouler dans le cadre légal hein, sous l'autorité de l'appareil judiciaire mon concerné diffusion de fausses nouvelles et des insultes publiques au Sénégal on est dans un état de droit liberté de la justice principe fondamental la mm. ay nit un pour restaurer l'état de droit Nous avons tous ces droits... pour nous au pour au pouvoir restaurer l'état de droit état de droit nous may une liberté d'expression mais liberté d'expression ne veut pas dire anarchie xam nga li xew c'est l'appareil judiciaire moo fonctionné l'officier de police judiciaire constate une infraction il s'est autosaisi arrêté leen déglu leen d'FPV, transmettre l'aide, le mettre des poursuites Nous juger nous juger pas nécessaire de mettre sur sous mandat de dépôt pour relaxer leen amul lenn lu ci impacté, l'état de droit au contraire nous dañu waroon que l'état de droit fonctionne très très bien même mm. que rupture mais bien sûr bu faites l'état de droit doxul Bougane Gueye dañuy du génn këram mm. du du de Cheikh Yérim Seck du ñibbi këram Kader Diagne du ñibbi këram Kader diffamation la yëkkati teg ko ci une corps muy la police jiiñ leen ni dañoo nangu corruption ci ay migrants mais loolu délit la loolu délit la moo ko wax na maa ngi yore preuve yi mais kooku kenn créé ko dara Bougane Gueye Dany propos yu mu tënni ñun ñëpp ko déglu Cheikh Yérim Seck kasaalika. Cheikh euh, mais bëri na Yérim li mu wax bëri na luñ ko diffusion de fausses nouvelles xaw ma bëri na man je man je me posais même des questions à savoir ñii lan moo tax woowuñ leen ba léegi wala dañoo setaanool seen émission yi. Hmm. léegi bu doon déglu leen a téye déglu leen commissariat bàyyi leen ñu ne lu tax ñu bale ñu ne le premier ministre moo woote wala le président. Hmm. nga ne rupture amul. bu doon procureur daf leen a placé sous contrôle judiciaire nga ne ah kon la fi nekkoon mi ngi fi nekk ba tey contrôle judiciaire yee ngi bëgg a bëri mais benn amu ci. dañ leen a déglu relaxé pure et simple. xaaral ma ñëw xaaral ma je je vous relance. waaw cher cher Ousmane en six mois en six mois euh, li nga xam ne comme Clédor mu ko waxee. des mhm. délits euh, d'opinion. ñu woo si ay nit. peu importe est-ce que aussi même en trois mois même si c'était en trois mois. déedéet y a pas d'abus y a pas d'abus xam nga lu tax. Cheikh Yérim Seck nga xam ne dafa def émission. y a pas de temps pour les infractions. wax li nga xam ne moo nekk analyse comme yow ni ñu koy defee. mais mais dans le mais dans l'ordre légal xam nga infraction y a pas de délai. Nous avons en une semaine. Hmm. pour pour constater infraction y' a pas de délai. Hmm. est ce que vous comprendre Ce n'est pas parce que c'est un nouveau régime que je def infraction bi n'est hmm. pas parce qu'il y' a un nouveau régime que nous allons permettre temps de laisser faire nous mu la nous bu ñu non non au contraire nous dañ bëggoon le régime ci un piège entre deux choses leur combat démocratique. Pastef daf ci bokkul liberté d'opinion donc ñun bu waxé ñu jàpp ñu dañuy génn na ñom renier nañ seen i conviction liñ jaayoon Sénégalais yi ci beneen bi calendrier électoral bi on est à la veille des élections du oser japp jàpp un opposant mais lolu du yoon. d'accord xaaral xaaral daaneel guma dans un état de droit peu importe kii wax peu importe timing bi peu importe jamono bi bu infraction bi amé yoon daf cee war a jaaree daaneel guma jàpp s'il te plaît légui li am solo ba am moy muy Cheikh yirim Seck muy Bougane Gueye Dany Kader Dia ils sont pas au-dessus de la loi ko ci def infraction bo xamné l'officier de police judiciaire japp na beaucoup bu ko Ousmane Touré wala dimba Diop défé mu auto saisir non la wara auto saisir ci yirim c'est pas parce que c'est yirim wala c'est Bougane wala c'est Kader légui nak yow lan nga bëgg état de droit nga revendiquer rupture nga revendiquer auto autosaisir na procureur def na constat am relaxé nga ne état de droit doxul ci tank bi mu waroon doxé xam nga xam nga kenn état de droit ba doon doxé tank bi mu waroon doxé premier ministre ingéré won ci dossier bi amul te du Moussa président de la république ingéré ci dossier bi te amul te du Moussa am ma doli la ci yëguñu woon sax ñi seeni arrestation même le sommet de l'appareil judiciaire c'est-à-dire le ministre n'était même pas au courant de leur arrestation Donc c'est dans l'ordre normal, légal des choses que ça s'est passé. Génn nañ am liberté man nag sama opinion mooy waruñu leen woon bàyyi man bu ma doon conseil procureur dama xeex na ko mu mandat de dépôt leen xam nga li tax liberté d'expression signifiewul anarchie. Sénégal boo ko bëggee defar kaay mu wax la fii amal yéene bu mu mënti doon boo amul benn main de fer. moo xam nag da nga koy lëmasee gant de velours doo defar réew. Sénégalais yi sa digg boobu la ñuy farankulaay toog ci. Sénégalais yi sa digg boobu la ñuy farankulaay taxaw ci léegi nag certains te diront Ousmane Sonko propos yi la doon te tenir bi muy opposé waaw. mais dañ ko arrêté après. procureur da ko arrêté listel ko déclaration yi mu def yëpp. na ko def toppee naa la huit chefs d' am na wala am. Mm-hmm. waa léegi kon bugaat moom it bu waxee nañ ko ko toppee. D'accord, merci beaucoup cher Ousmane. Euh, Moustapha par hmm. on parle de lui on a parlé de lui pendant des jours. on lui a fait une communication gratuite. on a fait un piège. Manam, euh, xam nga lan mooy piège. Le fait que bu defee benn infraction ñu ne c' un homme politique. bu ñu ko jàppee dañ koy may bës loolay piège. On hmm. dama gëm ne appareil judiciaire dafa war a indépendant ci loolu. lijjantiwut bës lijjantiwut am na bës ou pas ku def infraction rek yoon woolu bu gisee preuve mu jàpp bu gisul preuve mu relax. waaw léegi ñi loolu moom beneen débat la ñu ngi fii seen cas yi fan mais nag ça avance man li ma ci xam xaw ma nag yow sa côté mais man li ma ci xam ça avance am na dossier bu tudd boo xam ne mi ngi avancé normal. affaire jam ñaajo boobu. Euh, mi ngi avancé normal bi mooy ñu woo ki. Mhm. mu waaw boobu moom boobu mom xolal ni ko ñi ko seq ñëpp ñu ngi bouger jamono ji dossier mi ngi avance yoy yoy yooyu c'est des en l'état ba pare. dañ ko enquête ba pare. foofu moom nangu naa fa. bëri dossier yi xaar ces arrestations la sortie euh, du mouvement Y euh, bi nga xamné ne mun depuis euh, avant-hier gis nañ ak critiques yeeg même sax attaqué par rapport avec la personne de chat et ki nga xamné mo moo nekk Aliou Sané no jàngatee li nga xamné mo moo nekk ces arrestations ak même cette sortie walla du mouvement Y yi lay démarré xam nga constat bi ma si njëkk def mooy su fekkoonte ne mbiri politique dëgg-dëgg dëgg la euh, ay politiciens dëgg-dëgg ñooy ñooy doxal wala ñooy taxaw du ñu arrêté waxtu bi. parce que su te ne lecture politique rek la ñuy def dañ naan dugg nañ ci période boo xamante ne boo fi arrêté buggaan yaa ngi koy may risque mais dafa am loo xam tamit dafa am su fekkee fekkente ni ki dafa nekk ci penc mi. waaw chaque jour mu commettre benn infraction chaque jour mu commettre benn infraction ñëpp di ko observer ñëpp di ko constater ñëpp di ko gis après ñu taxal noonu nañ ko bàyyi parce que suñ ko jàppee kat mën na mën na am lu mu indi wala bu ko jàppee suba la tabaski wala gannaaw suba la tabaski day du du tabaskee këram. Mm. yooyu dafay indi ñu am benn tollaat la boo xamante ne xaajaat la bi am ci biir askan te loolu baaxul. Mm-hmm. moo waral tey jii le fait que nit ñu ko jàppee dañ koy may bës loolu c'est parce que nul n'est au-dessus de la loi. diw bu ñu ko jàppee dañ koy may bës. diw bu ñu ko jàpp daa bëgg ñu jàpp ko diw non bu defee lu jar jàpp dañ koy jàpp. ak jamono ju mu ko defee ak nu mu ko mun defee noonu la justice yi doxee ñun boo leen dégloo sax dañ naan leen justice amul amul temps waaw amul guddi nga commettre infraction wala démb nga ko ne wala nangam ak nangam. bu ñu la waree jàpp am li ñu la war a jàppee dañ lay jàpp. waaw léegi nag bu fekkente ne dañ naan loo li ñu si teg politique lay doon. Mm-hmm. te calcul politique bu ñu ci duggee rek dañuy dellu fa ñu nekkoon. Mm-hmm. maanaam premier ministre moy décider ou le président moy décider jàppal mu jàpp baye mu bap et lol c'est très dangereux gis nga régime bi do gagne day am ñu mu jàkkaarloo ñum duñ ko nangul lolou régime yeb dañ ko confronter ak mom gis nga Abdou Diouf biko biko biko ko bi ko Senghor di jox nguur gi dafa xamne ne am na ay baron social su am doole yo xamanteni ki c'est un jeune bo xamante il n'a que 35 ans amugul doole nonu ñu ñu ñu njiitu non autant pour moi amul ma 35 45 ans bo xamante amul doole nonu mu fekk fi ñu ko ëpp doon ëpp ay kilifa gis nga ba ba mu ñëwee cri la di dekki teg na nappee leen ko. parce xamoon na ne boobu am na ñu bëri bu amul menace bu mu teg seen kaw dañ koy song Macky Sall bi mu ñëwee Abdoulaye dafa ñëw bi buntu transhumance. nit ñi daw si di ñëw nit ñi daw si di ñëw daal di renforcer wu ñëpp daal di ñëwaat Macky Sall bi mu ñëwee moo fi njëkk teg ñoom euh, maître Amadou Sall. lu mu leen tëjee woon ab ab Amadou Sall bi nekkoon après avocat Karim Wade ak yu ni parce que dafa jàpp ne daf ko wax loo xam ne waxuwul. baaragay mi mi nekk pur tey ji Macky Sall dencoon na ko fi parce que dafa ñu ñu bëri ñoo xamante ne da ngay gis ne kon boo doog a ñëw am na ñoom duñ la nangul léegi ñàkk nangul boobu nag il faut nga wan ne ne y a une autorité dans ce bu fi nekk boo xamante ne boo jàddoon mu teg la si yoon mais foofu su fa état bi wala autorité bi su fa delloo ginnaaw rek c'est fini wax maanaam warul doon benn dictateur waaye tamit daf leen war a wan ne ah yéen kat diw mi ngeen doon gis télé bi ba jàppee ko mu musoo leen koo xoolee bëtu kilifa il est temps ngeen xoolee boo demee dugg toog ñu convaincre nga dem toog ñu tegal la chaise nga toog di xaar ñu diglu ñu lay lu nga dugg ba génn baagante bi nga xëy ñu ñu yóbbu la euh, kaaf ba nga dem di xaar procureur mais boo toogee di nga ne ah kon man ki ma daan gis télé bi di ko tuutal ki ma doon wax baat yi moom moom moo ma jarale ak lépp lu ci mënti am mais Bougane bu mu génnee la mu doon wax ndax waxaat na ko ci conférence de presse ba mm. waxaatu ko te amaana bu bu parenthèse bu génnaatee bu defaatee day répété kon tey ji am na leen loo xam ne dindi na ko ci benn ñàkk worma ak benn xotti worma boo xam ne daan nga ko gis mënu ko def de façon délibérée jëmale ko ci ñi nga xam te ne ñoo nekk ci kaw bopp réew mi kon loolu pour man bu dee lu ndaw sax saafara na ko mu jëm ci mbir moomu hmm. nga dégg ñeneen ñi tamit bi ñu génne même discours boobu lañ am gëm nañ suñu justice su réew nangam ak nangam ak nangam moo tax grosso modo daal pour man c'est une parenthèse boo xamante ne mën nañ ko façon yu bëri man dama jàpp na à quelque chose malheureux bon waaye tamit mën nañu ci tirer ay leçons maintenant lu ñëw ci euh, génn bi Y'en a marre génn mm. lecture bi ma ci defoon rek mooy dama jàpp ne dafa teel c'est vrai nag ni Clédor waxee rek dañu nekk ci démocratie nag mënuñu am benn régime bu fi nekk ñu ne bu kenn wax mm. bu waa société civile waxee ñu ne nañ noppi bu droit de l'homme si waxee ñu ne nañ noppi keneen ko wax ñu ne na noppi waroon waroo leen wax non non mm-hmm. nga xamante ne dañoo constitué nekk ay garde-fou dañuy dimbali bi parce que boo nekkee gars yi dañ lay créer ay intermédiaires yoo xamante ne daanaka daanaka daanaka dootoo leen dootoo leen dootoo dootoo bàyyati xel sa sa sa askan. et loolu c'est très donc il faut nga am ay droits de l'hommiste il faut nga am nga nga am ñoo xamante ne dañ lay dañ lay dimbali ba ba nga ba ba ba nga ba nga bañ a tarxis. maintenant ñun nag dama jàpp ne sortie bi daa teel. daa dañ ko xawtu maanaam dafa dafa dañ ko teel a def. par rapport ak tey boo leen déggee seen discours ak façon bi ñu ko doon waxee dafay mel ni comme si que dañu dellu ci état bi Macky Sall toll woon te loolu laa jàpp ne rek benn tarxis la boo xamante ne tey jii euh, mënoon na mënoon mënoon ko cadrer par rapport ak li nga xamante ne mooy situation bi mais dañuy wax comme si que dëkk bi dafa dugg ci benn zone boo xam ne wala ñu ngi fay waaj a

benn temps lañ dégg mu ne mu ne musul am. passeport diplomatique passeport diplomatique lañ koy laaj. léegi moom est-ce que passeport lañ ko teree woon génn. loolu mooy problème moo tax mu ah, ah, ko am d'ailleurs ñu ne a dem. mais lan moo tax demul foofu am na benn euh, problème de d'information am na. Madiambal daal li ma gëm mooy la ma la waxoon rek euh, mesures yi nga xam ne. permettre loi permettre nañ ko bépp officier de police judiciaire moo xam policier nga moo xam gendarme nga moo xam enquêteur bu mu munti doon mooy jël ay mesures préventives ne diwkat am na dossier en cours war nañ ko déglu mu fexe ba ordonnance tukkee ci procureur de la république mu jël ay mesures bokkooku ñu aayee ko sorti du territoire loolu du fi lu bees Macky Sall defoon na ko fi am na ci yeneen réew dara nekku ci lu garaaw léegi nag version Madiambal Diagne <coughs> dama koy defe gëm xam nga li tax état bu ne am nga passeport diplomatique rek am nga ko parce que ñoo yore registre bi yëpp passeport diplomate nekkul loo xam ne dañ koy jaay ko mburu nga mun ko amee fu ne déedéet benn buntu lañ koy jëlee suñ nee am nga ko rek am nga ko buñ la ko toppee di la ko laaj moom la la doon laaj buñ la aayee génn réew mi nag nga bëgg a manipuler nit ñi naan passeport diplomatique leen la laaj ak yooyu façon man li ma gëm rek yoon bi mu doon encouragé di ko rafetal bi muy barricade kër Ousmane Sonko moo ko aayee génn aéroport. point. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. sur le cas de Madiambal euh, am nga loo a teg.

mais am na loo xam ne euh, euh, yoon xëy na bëgg na leen ko laaj. ku mel ni Cheikh Issa Sall par exemple. moo yoroon euh, caisse de dépôt et consignation. c'est vrai dégg nga sorti ci Fadilou Keita def ci lu fa fekk. ak yëmu gi mu ci yëmu mhm. kon ku mel noonu ñu ngi ko doon tukki mën nañu njort ni gestion caisse la jotee. mais ma Madiambel ñu ngi naan mosuñu ko dénk benn ndombo tant que responsabilité pourquoi ñu koy teree voyage ak yooyu mais le foncier. est un problème moom dafa am société immobilière mmh. nekk ci foncier nekk ci littoral bi nekk ci ay litige mmh. euh, donc euh, ñoom ñëpp ñi nga xam